maa maa ngi tudd Amadou Gilbert sam nekk militant APR bokk si Thiès Ouest waaw suñu suñu teewaay fii tey laataa ñu si tàmbali sax si dugg dañuy ñaanal la xalif général Serigne Sidi Makhtar euh, Mbacke mu yàgg fi loolu tëwét ñaanal suma Serigne Serigne Cheikh Béthio Thioune mu yàgg fi loolu tëwét di ñaanal le président de la République Macky Sall l'initiateur euh, du plan Sénégal émergent mu yàgg fi moom tamit tëwét yàlla may ko deuxième mandat acte yi ñuy def peccum liir su neexee nday dee jàpp si mbagg mi tey suñu mënee accompagner daayira yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jege euh, jël tuuti si suñu moyen jox leen loolu président Macky moo tax ak ñi nga xamante ne moom moom moo leen fal ñun si lii lañu président woo nat la boo xamante ni dañuy jàppale population bi si fépp fu ñu jëm tey màggal Touba dafa xew faaw ñu ñëw as tuut li ñu am ñu bokk ak nit ñi accompagner leen ñaanal leen ñu dem si yoon jàmm dem ziare jàmm lépp lu ñu fa ñaan suñu borom nangu ko looloo waral ñu ñëw accompagner leen xam ni ñoom aussi dañuy accompagner si politique bi nga xamante ni moom la ñuy def waaw te jubluwuñ si lu dul plan Sénégal émergent nit ñi gis si seen bopp beneen beneen bis des mooy lii nga acte yi nga xamante ni moom la ñuy posé ñu ngi siy gërëm notre présidente Ndeye Tické Ndiaye Diop secrétaire général ministère de la pêche ñu ngi siy gërëm aussi le coordonnateur communal Thierno Alassane Sall parce que léegi nii bi may romb dayee naag waa këram si angle bi féete côté bële ñi ngi def liggéey bu am solo waa kër Maodo Malick yi aussi gis naa leen ñi ngi def lu am solo mais ñi ngi gërëmaat Ndeye Tické Ndiaye Diop parce que lii nii ñuy def tey ji jàpp na si bu baax a baax te su si jàppee président moo tax bëgg na président am deuxième mandat ok ñi gërëm ñëpp di ñaan ñëpp màggalu jàmm wasalaam